salaamaaleykum sama mbokk sénégalais yi ñi ci biir réew mi ñi ci bitim réew fu doomu adama nekk te nga xamante ni mi ngi euh, bëggee sunu waxtaan yi mi ngi wettali sunu waxtaan yi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di accompagner di leen ñaanal yàlla di ñaan sunu waxtaan yi yàlla def mu leen di fekk ci jàmm di leen fekk ci salaam di leen fekk ci vraiment ci ay conditions yu yu xamante ni di ngeen ko mën dégloog seen sago. bon nu julli ci sangu-sang yi nag comme niñ koy defee saa ne seydina muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla yokk ko leer te tax ñu ci barkeem ba ëllëg ñu ànd ak moom tabbi àjjana ñu ngi ñaanal way dawli àjjana firdawsi di ñaan ñu feebar yàlla yàlla wéral leen ñu ngi ñaanal aussi ñi nga xamante ni ñu ngi ci prison yàlla leen yàlla teg loxo génne leen fu ñu nekk ak souffrance yi ñuy dund yal na yàlla dindi xat-xat yi ak jafe-jafe yi yal na yàlla faj aajo yi guddal fan yi wéré cëri jàmmal nu jàmmal nu jàmmal suñu teeg suñu ëllëg jàmmal suñu njaboot jàll suñu soppe jàmmal suñuy soppe jàmmal suñuy mbokk suñuy dëkkaale ñëpp ñu nga xamante ni yéene nañ ñu jàmm yal na leen yàlla defal jàmm ñu ni yéenewul jàmm tamit yal na leen yàlla jàmmal te raxas leen ba ñu yéene nit yi jàmm ñu ngi nag euh, waxtaan tey jii li nga xamante ni mooy euh, yàq nit xam ngeen ne jamono dafa dafa yàqu jamono dafa dafa dafa soxor jamono soxor mooy lan mooy dafa dem ba léegi nit yi xalaatatuñu yàlla nit yi xalaatatuñu ëllëg nit yi xalaatatuñu bàmmeel nit ñi xalaatatuñu euh, lépp lu nga xamante ni mooy euh, àtte bu mujj bis ma bëgg nag euh, saa su ne ma ci waxtaan di ci delloo ci xelu doomu aadama yi di ci delloo ci xelu ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu ak xel di déglu ak seen sago parce que xam ngeen ni ñu bëri ñu ngi perte seen bërëbu liggéeyukaay <coughs> ñu bëri ñu ngi perte seen liggéey ñu bëri ñu ngi perte seen ay sëy ñu bëri ñu ngi perte seen xel ñu bëri ñu ngi perte seen ay relation yu baax yi nga xamante yàlla moom jagleeloon na leen ka am ñoo xamante ni des fois ñu perte seen ay projet ay ay projet de vie yoo xamante ni projet yoo xam ne investiroon nañ ci ay alal yu bëri ay projet de voyage ay projet yu bëri yi nga xamante ni da leen di da leen di da leen wër mu nekk lu nga xamante ni eh, am na solo ci dundu doomu aadama nit di ci bàyyi xel mooy na nit di bàyyi xel Eh, àdduna du dangay toog rek croiser les bras naan yàlla yàlla di xaar yàlla yàlla yàlla bay sa tool yàlla du wàcc kenn di bayal kenn toolam boo nekkoon di jaamu yàlla saa su ne guddeeg bëccëg am sa ay tool yu bari daa ni ne maa ngi wax yàlla yàlla ñaar jig ji di rek naan yàlla defaral ma sama tool bi yàlla yàlla tool bi du du baax du naat te kenn du ko bay bay il faut nga am sa loxo il faut nga am sa volonté il faut nga am sa fulla nga jógal sa bopp nga liggéeyal sa bopp war njiwu xaar taw toppatoos defar boo paree nga góob bu ñoree dem jaay li ci des nga lekk loolu moom mooy àdduna mais yàlla yàlla bay sa tool ci biir waxin nag ma bëgg a delloo si xel yi parce que si li ñuy liggéey saa su ne ñu gis ñoo xamante ni dañu yàqule dañu yàqule yàqule yu métti te fekk na doomu aadama moo leen ko teg yàqule bi ñuy yàqule nag li si ëpp mooy lan mooy que ay doomu aadama yu nga xamante ni nit moo leen jàpp yàq seen àdduna liggéey leen liggéey yu métti liggéey leen liggéey yu tar liggéey leen sàcc seen seen biddéew am ñoo xamante dañuy dañuy jël seen biddéew parce que ñu ngi nekk ci famille eh, war a tekki yàlla jagleel leen xewul bu bëri xewul jagleel leen wërsëg bu bëri ñu dogaale leen ne fuuf seen wërsëg mu nekk nag loo xam ne dafa doy waar te dafa daw yaram en général ñi ngi koy def rek ñi nga xamante ni dañu rëy wërsëg moom nañuy jàpp seen ay étoile seen ay biddéew di sàcc jël seen ay biddéew di leen toroxal jël seen ay biddéew di leen womme womme yu métti ba mënuñu tekki ci seen dund nekk ci àdduna bi ñuy ñuy juddu nekk xale amoon alir bu baax doon jël pay ci classe yi doon ah, am xel di wax wax yu rëy ne ñëpp naan est que ñii ëllëg ak sibir daañu nekk lii daañu nekk lale nga gis saay-saay bu jog fële daa di kay wommi def ko ay mbiru ay ah, mbiru saay-saay def ko ay mbiru ay liggéey yu nga xamante ni daal dana yàq àddunaam liggéey yooyu di yàq seen àdduna nag dafa am pexe yu nga xamante ni boo ko defee sarax daal di koy liggéey nit ki lépp lu mu waroon am ci àdduna daf koy ñàkk yow mu ñëw si yow yooyu nag dafa am te mi ngi fi bëri mi ngi fi bëri ni xus ñu bëri ñu ngi yàqal ñu ngi leen di yàqal seen àdduna te fekk ñi leen yàqal ñu ngi leen jege seen ay mbokk lañu wala seen ay jege yaale ñu war ci bàyyi xel nag ñu war ci bàyyi xel parce que Thierno Amadou boo leen gisee mu koy wax di ko waxaat daf ko mën a faj daf ci mën a teg loxoom daf ci mën a dimbali jaam yi daf ci mën a jàppale jaam yi parce que saa su ne ñu gis ñoo xamante ni dañ leen yàqaloon ba pare mais suñu jógee ba concentré wu si ñoom defal leen ay xalwa génne leen ay sarax defaral leen seen àdduna ah gis nañu ni après dañuy reprendre une nouvelle vitesse amaat seen lépp lu nga xamante ni ñàkkoon nañ ko wala waroon nañ ko am te mu amuñu ko woon dañ koy reprendre dafay ñëw si seen dund nañu bàyyi xel ci loolu te xam ni yàlla rek a fi nekk leneen lu dul yàlla du yàlla nañu góorgóorlu ci sunu yaram yi jóg góorgóorlu ci sunu nekkin si sunu gàllaaj sunu bopp defar sunu yaram yi am na mbir mi teefaa dina dem ba nga xamante ne da nga gis nit nga dogaale ko nga nekk saay-saay bu jigéen daal koy fexe ba am ci moom doom pour mën ko dogale ni foofu li mu yor am ñoo xamante ni ay góor lañu sax des fois gis ni jigéen bi am na avenir ñu fexe ba dogale ko soit yàqal ka euh, yàqal ka daal yéen a gën a xam daal di koy euh, fexe ba ëmbal ko pour yàqal ko a di koy wammi am ñoo xam ne dañ koy jaaree ci lekk comme ni ma ko doon waxee ñii di ko jaaree Ah, ci ci liggéey si yére mën na liggéey mën na leen liggéey su yére def ko ci yére am ñoo xam mën nañ ko def sa dàll am na ñoo xam mën nañu tibb sa tànk am ñi nga xamante ni mën nañ ko def ci ah, ah, lépp lu nga xamante ni daal mu jege na la mais am na comme li ma ko doon waxee léegi ñoo xamante ni mën nañu seq yow <sniffs> buñ seq yow daal di koy soit mu nekk doom bu ñu am sa diggante ak yow mu nekk li nga xam leen di lee ñu mën la aspiré mën la mën la mën la mën la mën la yàqal sa àdduna yal nañ yàlla musal si yooyu dogale dogale kat yal nañ yàlla musal si ñoom te yàlla tënkal ñu leen yàlla suturaal nu taxawuñu sàmmuñu ah, te tagal nu ba nga xamante ni daañu mucc si ay pexem noon pexem seytaane yàlla jàppale ñu teeg ëllëg bu leen fàtte di ah, partager vidéo pour jàppale jaamu yàlla jaamu leen ci yàlla xam ne yàlla moo fi nekk te incha allah Thierno ku ñëw dina la dina la jàppale ci liggéey bi dina la jàppale ci sa dund allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam incha allah suba suba ci yeneen waxtaan incha allah